pour le Sénégal. Ici au stade Le Diar de Thiès, devant Al Hadji Maraganu ma ne woon denn Mala du ñëw égaliser gars yi am penalty penalty boobu nañu xool ku koy dóor ma Kumba Sylla moo koy dóor l'une des meilleures joueuses de l'équipe nationale U20 moo koy dóor. Koumba Sylla à l'occurrence. benn ak benn juróom benn minute ci des Koumba bu dugalee bal bi match tas na maa waaj maa ngay arrière pied droit ba face à un gardien marocain le numéro 22 waaxu Koumba waaxu maa wuti bal ba benn ak benn ndax dana ko lijjanti ay ginaar yu ñu xomb la lu koy booleel ceebu jën la wala cere baase wala damada wala maafe ginaar ànd nan ba tey arbitre baa ngay wax ak moom li nangu ak li yoon nanguwul bal berek bal berek ku mbaa ngi waaj supporter yëpp jóg nañ taxaw di ko xaar ma dem pied droite bi la koy dóoree face à numéro 22 de Maroc Koumba Sylla gone Ndakaaru gi parcelle ñi ngi taxaw di seetaan seen télévision bi di Aladji Malick TV en bi ci stade Dalor Lat Dior bu Thiès Koumba ngay dem arbitre bi tiré arbitre bi tiré na ma ngay waxu qui va frapper contre-pied parfait oh le deuxième but sénégalais Abidjan. Que ce bien joué de la part de Sénégalais. Quel match de vous C'est bien bon C'est vraiment magnifique. Ce qui s'est en de passer est très extraordinaire. Deux buts